daal biti bii la ñuy jëli unité 16 ñu dem xool ma ànd ak sama naar bi fii la dëkk taala lañ seet si ah taala biti bii bu akaat sukki asalaamaaleykum imam nice xam nga lu ñu fi indi. waaw waaw waaw dafa mel ni de yaa pare naa nice na excellent. nga pour pour bid pour défi bi. non excellent ñu dem xool. avant ñuy dugg si biir euh, taala fii ñu indi mooy fan fii sa gaale la. waaw fii mooy sama gaale xam nga comme ni ko couple DFA bi waxee woon am naa pharmacie sama gaale am naa clinique sama gaale donc egsi ngeen sama gaale. ana clinique bi côté bi. clinique bi mi ngi ne pharmacie bi mi ngi si ginnaaw ne. ana studio bi si biir. mais comme ni ñu ko waxee ci premier part am na benn booy bu ñu fi ñëwoon. Euh, bu ñu fi ñëw dëgg tëggal ko mu tëggal ñu bit. bitu kalifa bi. ak potolamp mais potolamp lañ ko waxoon mu yokk ci kalifa bi. mais est-ce que tey pare nga pour relever le défi tegu si bit bi est-ce que loolu mën nga ko. waaw parce que man en loolu laa gënoon bëgg sax parce que xam nga au départ c'était pour bitu potolam bi loolu la ma xalaatoon quoi mais ba si biir dama ne <tsk> dañ si jéem a def beneen surprise quoi et moom aussi si la ma proposé xalifaat bi ma ne ko ça tombe bien parce que day mel ni début ak fin wu dip la quoi tu vois du ma ne fin wu dip boog début ak tollu tay yu dip quoi waaw waaw euh, lu tax ñu choisir taala biti bi yow yaa mës a def benn texte bu extraordinaire. Euh, di wax ak Dip que ne nëbboo ko quoi mooy sa rappeur tu vois et on a jugé nécessaire que ne foog ñu ñëw jël boo bi xool lan lay tagu ci loolu noonu. waaw waaw waaw man bon loolu nëbbu ma ko quoi tu vois gars yi gis nañ loolu wax naa carrément que Dip mooy sama rappeur et j'en suis fier parce que peut-être loolu Sénégal la nekk problème mais soo demee États-Unis nañ gis benn J Cole mu ne man dama sonn pour gisante ak Jay-Z xam nga collab ak moom. xam nga benn kenn du naan ay Jay-Z mooy sama rappeur Nas mooy sama rappeur mais peut-être Sénégal on a ce problème quoi. mais ragaluma wax ko quoi tu vois donc euh, c'est un idole boo xam te ne dama koy suivre fu mu egg bëgg naa fa egg ba ko incha allah. pare <laughs> bu yàgg. <laughs> let's go. xam nga fii mooy waañ bi quoi ama gars yi ñoom ñu ngi néegu rab mais fii mooy waañu rab bi. <laughs> ñu dugg ci waañu rab bi xool la la nga. salaamaaleykum sama gars. Yeah. mais Talla euh, yow mais kan moo lay prisé léegi nii euh, bit bi. non man maay prisé sama bopp xam nga gars yi moom su ma ba pare rek après maay defal bopp parce que en même temps je suis son. donc su may prise sama bopp si laay gën a si laay gën a xam sama son ni ma ko bëgg a arrangé su may mixé nan laa koy defee quoi. Ara yow euh, micro baa ngi ne écran yaa ngi nii nan nga def ba prise sa bopp nooy gisee affaire. bi laay <coughs> mooy a manipuler clavier bee nekk si biir donc su ma ko branché kii bi à distance quoi su ma tegee euh, souris bi si piste bi ma bëgg a record rek. contact après damay bës affaire bi ñëw. ñu ñu ñu ubbil projet bi nga dem ci puuf bi ñu door ko vite fait. Kaala noo gisee but bi. mi ngi nice mi ngi dope bon respecté na bitu potolam bi mais aussi gis naa ni am na ay affaire yu ndaw yu mu yokk quoi dina ma permettre man aussi su may rap ma gën a changer que dip lu mu def quoi xam nga ma def la leneen lu wute ak dip lu mu def quoi. instant bi est-ce képp nga refrain bi ak parce que ñaari bit lañ la jox kalifa ak Potolamb est-ce que képp nga lépp instant yi instant yi foo toll ci bind bi ñu xool bind bi wan ñu caméra bi ñu xool <laughs> bon instant bi nii je vais juste essayer de respecter dugg dib bi tu vois day doon benn genre big up quoi après deux bar rek je change carrément taalibiti bi continuer lu stop quoi moom moo tàmbali mais ma eggali. loolu nga bind ko mu waaw loolu la. ok ok ok ayca ayca let's go. mu ne mu ne. <laughs> nee naa man maa moom moo tàmbali man maa eggali. dib moom moo tàmbali. man maay eggale mooy Jésus ak Mohamed quoi. kookoy biti bi ñoo ngi nii ci puuf bi ah parce que fii lay dóore gis ngeen ah mu ngi noonu di dóor euh, nee na xaw na am na lum kepp nii lañ koy tafaral di defee parce que foog ñu xool rappeurs yi seen biir studio nan la ñuy def ba dóor son donc yéen a ngi dégg déglu na bit bi jël na temps am déglu bit bi mu ngi nii si si puuf bi di waaja dóor et li gën a important li gën a garaaw mooy moom mooy prisel boppam ayca let's go mais su may prise doo leen wax su may prise doo leen wax sinon dafay feeñ fële quoi. Dieu. et yow. attends est-ce que wàññi ba lu tax may wàññi fee parce que su ma ko wàññiwul bruit wu baffle bi mën na dugg fii nii wala dugg si kër est-ce que <clears throat> Dieu et Malick Ndoye <laughs> maa yàgg na waxtaan bi dafa tar waay pa bëggul ma xam accident de travail ne leen bii ci bii du ma sa dund gis nax ni nga faw nga dee ngir mën a gis li ne ginnaaw sa kii raay yow yow <coughs> e Malick Ndoye seen coof jàpp e yow maa yàgg na waxtaan bi dafa tar paa bëggul ma xam accident de travail ne leen bii bii du ma sa dund gis nax ni nga faw nga dee ngir mën a gis li ne ginnaaw sa kii raay rab yi maa ko yor ko ni nga demal toog ni nga may mooti si teen bi bakka ñëpp la may root yu know what time it is the time is bii ci bii nekkuma bi ne sa montre pile bu jeex du tax ma mën a stop yeah. Yo. The Malik Ndoy. Welcome to Be The Business. Yo. maa yàgg na waxtaan bi dafa tar waay. paa bëggul ma xam accident de travail ne leen du mës a gis ndax ni faw nga dee ngir mën gis li ne ginnaaw sa kii rab maa ko yor ko ni nga demal may muuti si teen bi bakkan ñëpp la may root you know what time the time is nekkuma temps bi ne sa mootu pil bu jeex du tax ma mën stop ni nga fuck laaj laaj ay waay waay euh, jusqu'ici gis ngeen dugal na quelque part ah dugal na quelque part mais après lan moo si des yow parce que bind nga ah mais da ngay def mel ni da ngay baar par baar. waaw ah, ba comme que maa ngi doogee commencé bind il faut ma jël sama temps su ma dugalee xool lan lay joxee après su ma fiilee après ma continuer quoi. def étape par étape quoi vite fait rek. ok yow maa yàgg na waxtaan bi dafa tar waay bëggul ma xam accident de travail ne leen biiti bii du ma sa dund gis na ni nga faa nga dengir mën a gis li ne ginnaaw sa kii raay rab bi maa ko yor ko ni nga demal toog ni nga may muuti si ten bi bakkan ñëpp la may root you know what time it is the time is biiti nekkuma temps bi ne sa montre bi ceex du tax ma mën a oh shit shit shit shit loolu xew baa non dama xaw a juum fii tuuti quoi daam benn mot bu ma fàtte quoi. donc ça arrive souvent avec les rappeurs quoi da ngeen di rab ba si ak ngeen juum. waaw mais ay nit nañ tamit quoi tu vois xam nga dañuy xalaat def xam nga su marché wul ñu changé xam nga def leneen quoi tu vois donc fi maa ngi war a riime riime riime mais dafa mel ni beneen moo bi ni ma ko bindee sama xel laa ko bind mais bindu ma ko fi moo tax may lire rek dama ko tëb quoi foog ni donc mooy loolu. mais nii boo jumee yow nga xamante ne yow kese yaay yaay prisel sa bopp nan ngay def. damay jëlaat piste bi. waaw wala soit su fekkee damay drop mën naa drop juste avant fi ma juumee comme ça ma continuer quoi mais li gën a wóor mooy ma jëlaat piste bi def ko mu gën a carré quoi. yéen a ngi dégg lii yëpp gars yi xamuñu ko woon donc euh, voilà quoi tey imam lañ seet si imam day juum imam day juum. ayca <laughs> ah. ñëwaat. hey yow maa yàgg na waxtaan bi dafa tar waay paa bëggul ma xam accident de travail ne leen bii ci du mës a dund gis na nigga faa nga dee ngir mën a gis li ne ginnaaw sa kii raay rab yi maa koy yor ko nigga demal toog nigga may muuti si teen bi bakkan ñëpp la may root you know what time it is the time is bii ci bii nekkuma temps bi ne sa montre pile bu jeex du tax ma mën a stop nigga fuck rab gaa seen du shit su amul bii ci bii xoole ma fàtti xasuma bokkul du bas julli ji mënuma sip oskul yaa ngi tiig di former écurie may mburu Cees ak meew doote dooyuñ ma te kii talk to all these dog ak seen ci daare kokki imam bi teew na man maay xutba tëjal sa gàtte noppi ñi seeta njool di def musique lay soppi caga punti man maay yàlla gém bi ne sa king mu xam ni maa ko yónni sa yëg si gém bi day gaaw soo tàmmee maray kat niggas maa lay faat papa gém jur ay taw ak caat tekkil sa téere yi taxaw taali ni der tama tànk tànku leen si teenu taala rab wolof du raw mooy gént di saw si àll bi dafay daw mel ni kuy waaja daanu taala concurrence sañoo ko laasu lyrique CD taw poto lamp si sa photographe bul moo sa soxla flash foog ma namp gellu rappeur yëpp yi ma bëggoon a clash ma uude lu tax su may rap nga yuuxu ow oh, maa ngi ñëw sa gaale jàngal la wooye ma oustaz <laughs> ay képp ku nekk ci game bi man maay sa papa ci game bi tabaski jot xar yi di doxantu lay jàpp di rendi succès di sit ni bi di tokk ah shit shit shit shit shit shit shit shit. dafa dafa mel na nga pertaat affaire bi. waaw dama perte souffle quoi ma commencé sonn. <laughs> kon di ngeen rab ba si yàgg ni perte souffle. ah mais si ay nit nañ dañu ay machine xam nga soo jëlul nooy bu baax après di nga dem ba benn moment da ngay sonn il faut nga xam nga noo koy gérer sa nooy sa souffle yi quoi sinon aussi bon mën na feeñ feeñ boo xam te ne day naturel mu nice mais am na nu muy feeñee aussi dafay yàq énergie bi quoi tu vois. let's go ñu xool. képp ku nekk ci gém bi man maay sa papa ci gém bi tabaski jot xar yi di doxantu lay jàpp di rendi succès di sib ni duwlin bi di tokku si danku ceeb bi may ma ma tuus di jat ni jëtli tey sa MC la <laughs> taala taala li métti na de oh rap métti na de. non trop trop ma ko def rek. kët da ngeen rab benn 4 5 ba 6 ba képp nekk ci gem bi man maay sa papa ci gem bi tabaski jot xaar yi di doxantu la jàpp di ren di succès di siit ni diwlin bi di tokk si danku ceeb bi may ma ma tuus di jat ni jët li tey sa MC lay simpi ci gem bi donc loolu yëpp soo ko bëggee enchaîner tak tak tak tak tak soit da soit da ngay drop soit que yéen rappeurs yi ngeen nekk fi nekk ni li ngeen di daj ba rabat sama biir bi toj da leen abdoo di lekk ci meew bi di naan ci kii mais bon acca let's go euh, comme ni ah ne lañ koy defee c'est naturel ah ni lañ koy fekkee muy prise ñu xam na lay prise son bi parce que son bi gudd na de acca let's go jàpp di ren succès di sit ni duleen bi di tokk si danku ceeb bi may ma ma tuus di jag di jëg li tey sa MC lay sempi ci gempi piey ma sayet amul xof ni nga lay di tiit man la biti bii di rap dëgg ngay fen di ego trip welcome to be the business I'm here cause I trust the process you never see my weakness cause I use it for the pride tegu si trap nga ne ma mënuma rap di wër di fen di dul naan amuma jàpp woohoo oh God coono man. <laughs> yeah euh, mais gis nañ ne léegi nii nga pert suuf mais d'habitude nan la ñuy def ba entraîner souffle quoi pour rappeur di am souffle. waaw bëri na am na ñoo xamante ne dañuy abdo am na ñoo xamante ne dañuy takk seen casque nekk di daw di rap quoi mm-hmm. par exemple comme ñi ngay gis ñi dem di daw yi géej ñoom dañuy rab dañuy daw di rab quoi di daw di rab di daw di rap xamante ne coono boobu noonu dañuy koy dem ba seen yaram da koy tàmm. su fekkee suñu taxawee di rab xam nga kii daw di rab moom bos bu taxawee di rab aussi <laughs> <laughs> donc leneen lay doon quoi c'est ça c'est ça mais xam nga ñun moom dañuy toog ci yi rek di job moom fu ñu dem record pour ñu dem entraîner c'est tout un problème. parce que nee nga am nga studio sama gaal am nga pharmacie sama gaal da nga jaar ci pharmacie bi ñu joola la mais ah de musculation moo fi des. let's go. <laughs> succès di sit ni diwlin bi di tokk si danku ceeb bi may ma ma tuus di jet ni jët li tey sa MC lay semp ci gém bi pile ma saayit amul xof ni nga lay dox di tiit man la bii ci bii di rab dëgg ngay fen di ego trip welcome to be the business I'm here cause I trust the process you never see my weakness cause I use it for the tegu si tribe ngeen ma mënuma rab di wër di fen di dul naan amuma jaab kenn mënuma dab di kenn ti yéen ci gém bi you will always see us the winners stop talking like a haters middle fingers eat you like dinners finish you like a small seed xaar bi du yàgg bu dafa mel ni pare nga sawoon bi de mais en moins d'une heure quoi moins d'une heure nga dóor euh, ñaari son nga mm. bind si lépp ci studio bi quoi mais comme li ma wax feeling la quoi tu mm. soo fiilee affaire bi rek ça vient automatiquement quoi mais su ma ko fiilul woon nii mën mm. naa toog deux jours du ma am benn baar Eh, loolu la leen mën nga toog mën nga leen play benn bit nii nga toog di déglu doo am dara doo am benn idée top line sax doo ko am te pourtant artiste nga doo am sax idée bu gën a ndaw c'est parce que peut-être filo affair bi ko mais soo file bit bi rek ça vient automatiquement. ok euh, mu la moo la dese. bon dugal yenn affaire yu sew sew yi comme ay shout xam nga intro yi xam nga. bag yi non jarul sa bag mais shawt yi pour gën neexal quoi. mais shawt lan mooy shawt. d'abord pour ñu xamul li shawt xam na shawt de bu mais lan mooy shawt quoi pour ñu comprendre. ah mooy li sori di tàmm di def rek ay raaku taaku taaku taaku ay përra affaire yooyu noonu yii wuu affaire yooyu noonu yaa ma gën a xam. yow yiiwu ngay jël wala ban ngay jël yow. <laughs> non bàyyi ma rek tu waa su ma su ma play di ngeen gis quoi. sama cameraman da si bokk parce que moom bu añee ceeb bu neex ni foog mu ne <laughs> oh. Echa, let's go sama gars yi. what's up man VTB. Caan moom jarul ay teg su kaa. wuu wuu wuu ay wuu tu tu tu tu tu wuu wuu wuu wuu ay ay tu tu tu tu tu. Hey! Woo! Woo! Hey! Hey! Hey! Tout, bi ñëw na fuck you hey yo et Malick Ndoye welcome to be the business hey yo maa yàgg na waxtaan bi dafa tar waay paa bëggul ma xam accident de travail ne leen bii ci bii du ma a dund gis ndax ni nga faw nga dee ngir mën a gis li ne ginnaaw sa kii raay rab bi maa ko yor ko ni nga demal toog ni nga may muuti si teen bi bakkan ñëpp la may root you know what time it is the time is bii ci bii nekkuma temps bi ne sa mootu pile bu jeex du tax ma mën a stop ni nga rab gaa du shit su amul bii ci bii xoolee ma fatixa su ma bokkul du baax si julli ji mënuma sib oskul yaa ngi tit di former ak néew ni doo te doyuñ ma ndékki niggas let me talk talk to all this dog ak sil ci daaray kokki imam bi teew na man may xutba tëjël sa gàtte noppi ñi sewte njool de def musique lay soppi caga ponti man may yàlla gém bi ne sa ting mu xam ni maa ko yónni sa yëg si bi day gaaw soo tàmbee maray taat niggas ma lay faat papa gém bi jur ay taw ak caat tekkil sa téere yi taxaw taali ni der si tama tànk tànku leen si teenu taala rab wolof du raw sa benn rêve nga mooy gént di saw sa MC mel ni réseau ci àll bi dafay daw mënoo dëkk si bêtise mel ni kuy waaj a daanu taala comme courant sañoo ko laal su lyrics yi di taw potolom si sa photographe bul ma sa soxla flash foog ma namp gelu rappeur yëpp yi ma bëggoon a clash nekkuma uudee lu tax su may rap nga yuuxu ëw oh, maa ngi ñëw sa gaale jàngal la ba wooyee ma oustaz <laughs> def ko sa profil mbaa sa couverture ay sa profil mbaa sa couverture def ko sa profil mbaa sa couverture ay wala sa profil ak sa couverture BTB yow and Malik Ndoye. Welcome to Be The Business. Hey, everybody stand up. The king is back. It's BTB. BA City, what's up? Do, do, do, do, do. nekk ci gem bi man maay sa papa ci gem bi tabaski jot xar yi di doxantu lay jàpp di rendi succès di sit ni diwlin bi di toq si danku ceeb bi may ma ma tuus di jet ni jët li tey sa MC lay simple ci gem bi piey ma side amul xof ni nga lay dox di tiit man la BTB di rap dëgg ngay fen di ego trip welcome to be the business I'm here cause I trust the process you never see my weakness cause I use it for the prize tegu si trap nga ni ma mënuma rap di wër di fen di dul naan amuma jaab kenn mënuma dab du kenn ci yéen ci gem bi you will always see us the winners. Stop talking like a haters. Middle fingers eat you like dinners. Finish you like a smoothie. xaar bi du yàgg ba raw ma. ay new G bi seen papa ji ñëw na. ay old school yi papa ji ñëw na. ay ñëw na chef bi ñëw na. ay bi du yàgg ba raw ma. ay new G bi papa ji ñëw na. ay old school yi papa ji ñëw na. ay ñëw na ñëw na Shout out to Deep Down the Gaze. Hey, it's BTB. Welcome to Be the Business. Big Lie, what's up?